bokkum jullit ba bokkoo ci ñi nga xam ni dañoo bari lu ñu xaste lool wala ñuy tudd sikku jàmbur yi bu fekkee ci nga bokk wattandiku ko bu baax a baax dégg ma wax la yonent bi alayhi salaam yoroon na ay soxla waaye ma tuddal la ci ñaar amoon na ku ñuy wax yaa Aïcha ak ku ñuy wax sa safiyatu safiyatu yàlla dogaloon mu gàttoon benn bis yaa Aïcha taxaw ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko xanaa gisoo safiyatu mi ak gàttaayam bi kii ni mu gàttee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko sa kàddu gii day bu nu ko defoon am ndox sotti ko ci géej gi géej gi dana mujj lépp yàqu ndax kàddu gu bon kon yow sama mbokkum jublit yenn saa yi day ñu wax ay kàddu jàppee ko woyof lool fekk lu rëy la ci kanamu yàlla mën nañu ci àtte ëllëg yow yowmal qiyaam donte sikk gi ngay tudd mi ngi ci waa ji noppi ca te ànd ca ak maandu ndax mën naa bokk ci kàddu guy tax suñu borom jëppi la